asalaamaaleykum sama gars yi ñëwati nañ ziar leen ñu leen bëggee ñëwaat ci beneen numéro tey dañuy ñëw ak euh, ñaar muy euh, ki nga xam ne moom mooy Papa Ndiaye ak aussi tamit ki nga xam ne moom mooy euh, kii di Bouba tey ci ñaar ñooñu lañ fas yéene ñëw li tax ma bëgg ci ñëw nag Papa Ndiaye dafa wax lu am solo jëmale ko ci ki nga xam ne moom mooy ñëwu Macky Sall Macky Sall moo tax mu bëgg nekk député. moo tax mu bëgg a nekk député ci quinzième législature bi nga xam ne moom la ñu jëm alors que mu ngi foo nekkoon ki nga xam ne moom mooy président de la république jiite fi ay ndombal tànk yu baree baree bari yoo xam ne amoon na ko fi ñu ci man cee wax DG Petrotim waaye tamit nekk fi euh, président assemblée nationale nekk fi premier ministre nekk fi li nga xam ne moom mooy président de la république donc Macky Sall lan lay doyee li nga xam ne moom mooy euh, ndombal député ndax dafa bëgg a euh, rendre le pays ingouvernable wala ndax dafa am yeneen euh, yeneen volonté kase yoo xam ne moo nekk ci ginnaawam moom ndafa loolu nag bëgg naa ñëw ci aussi bëgg na maa ñëw ci ay manipulation yoo xam ne am na ci plateau boobu nga xam ne mooy mooy plateau TFM démb ci émission jàkkaarloo eh, dalaloon ki nga xam ne moom mooy Sadikh Top waaye tamit xam ngeen ni mu fa yàgg a demee Bouba gis nañu intervention boo xam ne def na ko euh, ci digganteem ak euh, Sadekh Top loolu bëgg nañ ci ñëw donc li nga xam ne loolu ñuy bëgg a njëkkee waaye risque ban moo nekk ci li nga xam ne moom mooy ñëw ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall fii nga xam ne moom mooy Sénégal ak objectif ban la am ci nekk député ban objectif la am di ko laax. loolu bëgg naa ñu ñëw ci euh, donc nañ njëkkee déglu Pape Ndiaye ci réaction su paree ñu soog indi suñu xalaat après ñu ñëw ci bëggandoo conclure ñoom ñu dégloondoo ñun ñëpp. gis ko parce que li ma la mën a xamal mooy sénégalais mere nañ ko trop ce serait très risqué mu ñëw man je me demande même est-ce que état dina mën a assurer sécurité. parce que sénégalais mere nañ ko trop loolu moom ku la ko wax moo am xaw ma lan la ko ay nitam nag loo moom président Macky Sall mais ni fii ma toog di wax ak yow mhm. Omar sénégalais mere nañ ko trop te l'attitude de Aïcha Camara ne fait que traduire l'expression d'une rage généralisée bi nga xamante ne moom moo animé certains sénégalais sénégalais mere nañ ko trop te ñëwum fii dafa bëri ay risque risque yi waaw nga jàpp ne mooy risque yi non lu ne mën naa xew lu ne lu ne lu mën naa nekk yow sénégalais bu mere yaa ma gën a xam mën na mën naa nekk parce que les victimes là sont là ñi nga xamante ne seen parents dañoo disparaître ñi ngi fi ñi ñu rey seen doom yi ba léegi amul ñu fi xamuñu fu ñu ñu torturé woon ñi ñu tëjoon kaso xam nga le régime de Macky Sall a fait trop de mal trop trop de donc loolu mi ngi fi léegi nag man su ma doon su ma doon waa réew mi su ma doon président a su ma doon premier ministre Ousmane Sonko su ma doon autorité yi fi nekk président Macky Sall du ma ko bàyyi teg tànkam biir Sénégal pour deux raisons. defoon na ko moom ak Macky Sall defoon na ko fi Ablaye Wade. Ablaye Wade waaye. bu ma doon ñoom dama ko bàyyi mu nekk euh, mu ñëw mu ne cëpp ci réew mi muy benn dama koy interdire mu teg tànkam biir Sénégal. Mhm. wala boo loolu mënta nekk bu ne fi ne cëpp mu dóor ko résidence surveillée. pour deux raisons. d'abord pour sa sécurité personnelle parce que sénégalais mere nañ ko trop. te leneen lu mënti am nguur gi la ñuy parce que dañ naan moo assuré la sécurité des personnes et de leurs absolument donc je me demande est ce que booba boobaa il sera très difficile ñu assurer sécurité Macky Sall moo tax bu ma doon nguur gi fi ne. su ma ko mënta interdire mu dugg ci réew mi. Hmm. bu ñëwee dama koy dóor résidence surveillée comme ni ñu defoon Sonko nga xamante ne ce sera pour des raisons de sécurité en fait. absolument pas pour violer droit mais pour des raisons de sécurité. Hmm. loolu mooy première raison bi war a tax nguur gi nguur gi war a taxaw temm ci ay mbiram deuxième raison bi mooy. Hmm. Seydina Omar yow ko. absolument ku dem ba nekk station président président de la république du nekk député moo lay kii. Mm-hmm. donc ça veut que y a d'autres intentions derrière. Mm-hmm. je vous dis ici que la volonté de Macky Sall c'est de rendre le pays ingouvernable. ingouvernable. waaw donc régime bi fi nekk bu ñu bu ñu maanaam bu ñu sous-estimer la capacité de nuisance de Macky Sall. Mm-hmm. ñoom ñu góor gi fi nekk ñoo la ko gën a xam moom. non moom loxo musul. ci maanaam capacité de nuisance Macky Sall gi fi ne ñoo la ko gën xam. Mm-hmm. donc bu ñu sous-estimer sa capacité de nuisance donc nekk député intéressé ku ne nekk président de la république am ay ci international nga xamante ne yow mën nga nekk secrétaire général de l'ONU sax jomb la xam nga ne kooku du ñëwaat nekk fii député assemblée nationale di taxaw di yuuxoo ko reen lu ko intéressé intention moom ay nitam c'est de rendre le pays ingouvernable yàqal nguur gi fi ne man nag bu ma doon président Diomaye wala may premier ministre Ousmane Sonko du du ma campagne campagne ni mu méttee tëdd kaso génn campagne campagne bu métti Sénégalais yi wóolu ma fal ma may accepter un ancien président di ñëw di ma ko yàqal du ma ko def bu ma ko mënta tere bu dugg ci réew mi dama koy dóor résidence de surveillance pour des raisons de sécurité donc lii moo mooy yéeneem lii moom mooy intention parce a toujours ses muy dans l' administration muy dans la justice muy direction yi ministère fépp foo dem il a toujours ses pions dans le système étatique hmm. puisque nag moom il a toujours ses systèmes là-bas que sa capacité de nuisance c'est pas à à minimiser hmm. kooku da ngay jël ay matuwaay ci moom kooku da ngay jël ay matuwaay ci moom balay dara di la bett parce que gouverner aussi c'est prévoir hmm. je vous le de na ci xam ne buñ ko minimiser rek loolu raa ngi fan mën naa jóge xamante ne mooy loolu de lii mooy li nga xamante ne moom moo ci am il a toujours ses pions dans le système étatique yenn sabotage sax ñu ko ci ñu ñu ñu ñuy tudd ñuy laaj naan est-ce que nekkul derrière comme sabotage bi am ci courant beeg. non coupure yu bëri bi temps am na ñuy laaj de am na ñuy laaj de gars daal dañu naan est-ce que est-ce que. damay laaj de affaire ma. ah question la. leer na nañ comme ni ko Sanex den doon laajee daal est-ce que ma ne damay laaj voilà. en tout cas li ngay li ngay wax nii dafa nekk lu lu am solo parce que président Macky Sall Sénégal yëpp xam nañ ne député. intéressé wu ko mais dafa nekk ku nga xam ne tamit dafa dafa yàgg ci système bi. Hmm. Macky Sall bu ñu jàpp ne 2012 la fi toog Macky Sall mën naa ne hmm. depuis 2000 ba léegi mi ngi ci li xam ne mooy le affaires. public du Sénégal lépp luy ndombal tànk daf ko daf ko daf ko yoroon donc maîtriser na Sénégal bu baax a baax nguur gi fi a xam capacité de nuisance am hmm. li mu capable ñoo la gën a xam maintenant koo xamante nag il a toujours ses pions dans le système étatique <laughs> saa yi kooku ay mbiram ko doo ko weefal de loolu doo ko woyofal boo ko woyofalee rek ah, a xool la parce que dem na aussi ba démissionné ci li xam ne mooy la démission démission wul ah dañ ko poussé à la démission c' est pas une démission volontaire parce que am na procédure bu ñu war a saytu France. Mhm. te bëgguñu lenn loo xamante day épinglé un collaborateur du président de la moo tax ñu poussé ko à la démission c' pas du tout une démission volontaire. Macky Sall démissionné wul dañ dañ ko poussé à la démission ah mais Pape lool c'est c'est une grande ah. révélation yow ma ne parce que li nga wax nii tamit maa ngi koy dégg temps yëpp nee nañ dañ ko poussé ci nga xam ne mooy démission bi donc am na dossier yu nga xam ne même su nekkul Sénégal mën nañ ci topp Macky Sall à l'étranger donc. bien sûr am na procédure boo xamante ne novembre bi war na tijjeeku mooy la procédure annoncée par maître Juan Branco boobu noonu. procédure contre kii Macky. waaw bien waaw mooy par rapport ak fee yi amoon nga xamante ne amoon na fi. imaginer procédure boobu tijji après ñuy incriminer l'exécutif français proche collaborateur du président de la République ak yoonoon xam nga day yàq réputation France justement donc moo tax ñu doon préféré na ko pousser ko à la démission donc c'est pas une démission volontaire dañ pousser à la démission en tout cas nekk na lu nga xam ne voilà <laughs> révélation bu euh, foofu laa yem li ma ci bëgg a njëkk ñëw mooy ki nga xam ne foofu lañ njëkkee mooy ki nga xam ne moom mooy président Macky Sall l'ex-président président Macky Sall Euh, gis nañu euh, li nga xam ne def na ko foofu la nga xam ne moom mooy Maroc ak ki nga xam ne moom mooy ay Aïssa kamara koo xam ne dafa taxaw interpellé la koo xam ne tamit euh, selon les informations yi ñu jot moom ci boppam dafa amoon problème ndax lan ay frère am dañu dafa dafa am ci ñoom koo xam ne dañ ko torturé wul ay torture yu metti am ci tamit koo xam ne moom dafa exilé woon d'ailleurs dafa exilé woon loolu nag euh, bu mu amee waral kii ndaje ak Macky Sall foofu la nga xam ne moom mooy Casablanca si aéroport bi xam naa xolam tamit dafa laaj mu taxaw interpellé Macky Sall te ne yi nga xam ne rey nga leen bakkan yi nga xam ne euh, rey nga leen yi nga xam ne torturé nga leen euh, àq boobu dina la dal loolu nag naxar yi ñi nga xam ne ñoom mooy couple présidentiel moo waral ñëpp. porté woon ko plainte ba ñu fanaanal ko en garde à moom soxna soosu loolu nag euh, ginnaaw bi di tax ma indil leen euh, wax ji dañu dégg bopp ba léegi ñuy wax naan Macky Sall mi ngi ci liste yi te effectivement mi ngi ci liste yi mu nekk tête de liste waaye tamit mu bari di daat maanaam des rumeurs yu wax ne Macky Sall war a ñëw euh, def ci campagne te loolu c'est hautement risqué. Macky Sall moom sax yàpp naa ne xam na ne xajul biir Sénégal jamono bi moom jàpp naa ne xam na ne xajul biir Sénégal Sénégal aussi soxlawuñu ko aussi tamit jamono bi xam na bu duggee Sénégal lan moo ko si mën a fekk mais lu waral Macky Sall euh, dugg bëgg dugg biir Sénégal wala taxaw di laaj mu tànku député ci loolu tamit dama ci fekk si ki nga xam ne moom mooy Pape Ndiaye man dama gëm ne Macky Sall il doit être arrêté ñu war a jàpp Macky Sall du ko libre di circuler à travers yi nga xam ne def na ko ci ay ñaawteef ci gouvernance am muy ay euh, scandale yoo xam ne am na fi scandale financier ak euh, tamit crime de sang yoo xam ne am na ci régime am moom Macky tamit ay torture ay emprisonnement politique ñu fi am yu baree baree bare yoo xam ne yooyu noonu yëpp mérité nañu interpeller Macky Sall waaye li ñuy wax haute trahison parce que scandale yi fi nekk càcc gu metti gi nga xam ne nekk na fi ak luubal gi nga xam ne gis nañ ko waaye rëbëje bi nga xam ne Macky Sall rëbëje ko réew mi ngir ne ñi nga xam ne ñoo fi ñëwaat duñ ko duñ ko fekk réew bu baax mën koo defar parce que dégg nañ ki nga xam ne moom mooy Ousmane Sonko li nga xam ne wax na ko mooy. Euh, ñun kat li nga xam ne jàppoon nañ ne yàqu na ci réew mi parce que yàgg nañu taxaw naan réew mi yàqu na réew mi yàqu na mais en réalité dafa sax gën a garaaw que niñ ko doon xalaate d'ailleurs li sax Bara Ndiaye wax Macky Sall dafa bàyyi bay yàq yàq yàq ba war a dem léegi rëbëje kii bi nag jël li nga xam ne moom mooy réew mi rëbëje ko ba nga xam ne euh, loo loo waroon def ci ay six mois wala loo waroon def ci un mën ngaa def dix ans yoo xam ne doo ko mën a defar ci ak yàq donc loolu nag man dama koy considérer de haute trahison kon Macky Sall dañ ko war a interpeller dañ ko war a jàpp bu duggee ci réew mi waxuma la ñu jàpp ko sax mais mandat d'arrêt international dañ ko ko war a dóor moom ki nga xam ne moom mooy Macky Sall d'ailleurs euh, li nga xam ne wax na ko tamit keneen ne risque la mu dugg ci biir Sénégal parce que tamit man damay wax sax ne liste bi nga xam ne dugal nañ ko ci ngir mu. dem laaji baatu askan bi liste boobu euh, liste boobu rek ñi ci nekk dañoo risque seen bopp dañoo tayle seen laay parce que Macky Sall ci ab liste xam nañ bu baax te ne sanction yi que euh, yi nga xam ne sanctionné woon nañ ko Amadou Ba sénégalais yi Macky Sall lañ gën a xiifa sanctionné que Amadou Ba Macky lañ gën a xiifa sanctionné que niñ sawaree woon ci yàkkamte voté ci euh, liste boo xam ne photo Ousmane Sonko rek nekk mais noonu lañu sawaree woon ci bëgg Euh, sanctionné liste boo xam ne photo Macky Sall daf koy nekk donc may nañ leen opportunité tey nag donc euh, la balle dans les camps des pour ñu mën a def li nga xam ne ñoom tey war nañ koo def parce que Macky Sall député gii nga xam ne ñu ngi koy laaj soxlawul dé Macky Sall soxlawul député man dama ko yàgg a wax Macky Sall soxlawul député bëggul député mais yàqate réew mi taxaw bloqué la gouvernement ba duñu mën a liggéey. loolu mooy son volonté le plus xamu naka laa ko mën a waxe sax volonté bi ko gën ñor moom Macky Sall loolu mooy li mu bëgg a réaliser jamono bii te mooy am majorité taxaw bloc réew mi lépp luy proposition de loi lépp luy projet de loi lépp loo xam ne débat orientation budgétaire ak lu mu mën a doon Macky na am levier bu mu mën a téye pour di ko mën a yàq pour di ko mën a gàllankoor moom loolu mooy volonté am li nga xam ne loolu la bëgg te dina ko jéem a jëmbal dina jéem a def tout pour am loolu loolu maa ko dégg mu wax waxu ñi nga xam ne ñoom ñooy lobby yi lu ci mel ni li xew rek nga xam ne coupure courant yi coupure courant yi waxuñu ne ay sabotage la waxuñu loolu peut-être ay liggéey la peut ay mise à yu ñu war a def lu peut-être leneen ak leneen ak leneen ko mën a nekk mais suñu xel dafay ñaaw ci ne les appareils étatiques dañ ko yàgg utiliser pour di xeex ay euh, di xeex pouvoir gis nañ le temps de Mademba Sock li ñu ko fi li euh, ñu li ñu fi bi fi Youssou Ndour di waaye moom Mademba bu dee yow la ak ko mën a mën a doon ñu ñuy tooñ parce que dañ ko téye woon di ko politiser maanaam di ko xeexe nguur parce que le fait que courant mi ngi dem ak a ñëw courant mi ngi dem ak ñëw sénégalais yëpp dañuy tourner leur jeu à travers le régime taxaw ne ñii mënuñu ñii ñoo ñu teg courant bi ñii biñ fi toogee ba léegi courant bi day dem ak a ñëw alors que ki ne ci suuf du état parce que société bi ko yor nekkul ne carrément état moom moo yorul boppam courant bi dafa am ci euh, société bu mu tegu am ay responsable am ñoo xam ne ñoom ñooy jaay courant bi ñooñu loolu à tout moment mën nañu def loo xam ne ay sabotage la pour dal ci kaw nguur gi wala pour xeex nguur gi ma ne nag ba tey moom moo am mais dama ne lu mën a nekk la parce que tamit euh, lu fi mosoon a xew jamono yi Abdoulaye Wade bi ñu ko bëggee daaneel yàgg naa ko fi wax dama koy waxaat ceeb bi lañu yokkoon dund bi dañ ko yokk jël ceeb bi denc ko wax na réew mi amul ceeb amu fi ceeb dafa cher ñoom ñëpp ku ci dugg ci internet da ngay gis photo yoo xam ne Macky Sall dafa yor saaku ceeb di campagne nga gis photo yoo xam ne Youssou Ndour am plein concert mu euh, yanu saako ceeb di wane ne ceeb dafa cher alors que ñi nga xam ne ñoom ñoo yoroon wàllum ceeb bi ñoom ñoo bloqué woon ceeb bi denc ko ba da gis lu mat un kilomètre ci rang ay nit yoo xam ne pour jënd ceeb rek lañ lañ bëggoon nga xam ne bi tellement dafa manqué alors que loolu ay lobbying la woon pour daaneel Abdoulaye Wade te lu fi amoon la te en réalité bu ñu xoolee ba ci biir sax dañ ko réussir parce que. seen campagne boobu ci la jaare jaaree Ablaye Wade wàcc en deux mille euh, ci élection deux mille douze donc loolu muy loo xam ne lu fi amoon la kon nag yu mel ni bu naree bu fekkee mi ngi fiy amaat te tous les euh, tous les appareils étatiques des pions de Macky Sall ña nga fa ba léegi raxas bi setagul ba léegi ñi nga xam ne dugaloon na leen ci yenn direction yi ñi nga xam ne dugaloon na leen ci. biir ministère yi ñuy liggéey ñu ci bari ba léegi changé guñ leen ñenn ñi ay contrat contrat wu euh, CDG lañ leen defal ñenn ñi ay contrat wu CDI ba léegi ñi ngi fa seen ay contrat jeexagul continuer di di exercer li nga xam ne moom mooy seen travail foofu noonu di suyeel seen ay euh, ñi nga xam ne ñoo ciy suyeel salle bu ñu ngi def liñ bëgg a def donc loolu nag dafa jar bàyyi ci xel. man bu ma interpeller état ci dara parce que ñoo gën a xam li ñuy def mais sénégalais yi laay alerté pour ñoo xam bandi yi nga xam ne ñoom la ñu amal affaire ñan lañ ñoo xam ginnaaw bi tamit li nga xam ne mu na ci muy poussé boobu nga xam ne poussé nañ ko Macky Sall mu démissionné wu moom Macky Sall ci boobu nga xam ne yoroon na ko muy 4P. loolu nag ñu ci bari dañ naa Macky Sall dafa démissionné alors que dañ koo poussé maanaam saaru dàq la ku ci xam ne tubaab yi ni ñuy doxee mooy nit ki bu defee gaaf wala bu defee loo xam ne lu jaaduwul la wala bu defee loo xam ne luñ ko war a topp ci justice la duñ ko bind di ko dàqate dañ koy poussé à la démission ne ko démissionné la fii rek lañ ne ci koo xam ne dañuy da ngay def benn gaaf ñu bàyyi la ko wala nga def dara toog ba ci yàgg nga ne démissionné waaye ñii dañu fi démissionné sax ay benn ki ñaar lañ. mais bu dee fële ñoom du ñu xaar nga démissionnaire ñoom dañ lay duñ la daax dañ lay proposé ne la démissionnaire ak des preuves yoo xam ne yooyu lañ lay tegal ci table ne la démissionnaire da par la force da ngay démissionné bu ko defee taxaw keneen ne damaa démissionné alors que dañ laa poussé à la démission donc loolu ci laa ci laa bëgg yem ci côté boobu damay ñëw ci li nga xam ne moom moo am démb. foofule ca TFM euh, entre Sadikh Top ak li euh, nga xam ne moom mooy Bouba Ndour dama bëgg ngeen xool Sadikh Top li nga xam ne loolu la argumenté loolu la indi ak euh, fii Bouba Ndour orienté waat débat bi après nañ déglu. ñoo depuis le début de ce qu'ils scandale Azer alors que scandale bi en réalité. mën na nekk sax. aar kopp wala aar kopp Sénégal. ñu doon wax ci sujet mooy wax euh, kii euh, scandale bi ngay wax dama laa. non scandale Azer bi daañu leeral rek ñun waxuñu le man xaw ma ndax scandale am na wala amul de booy wax waxal ak sa. politicien bi léegi. <laughs> bi nga xamante ne ñoo ngi wax ci sujet boobu. depuis le début ba tey nii. ñi si doon wax ñëpp mhm. dañ doon dugg dans le fond. dañ doon dugg dans le fond. Mhm. ne lii moo am lii amut. avec énormément de manipulation. en tant que sénégalais. Mhm. bokk ci régime bi parce que ñoom laa mës a àndal quand j'étais dans l'opposition ba ñëw. Mhm. ma gis situation bi je me suis intéressé au sujet ba am des informations comme tout sénégalais ñu mën a amee des informations et encore que je suis journaliste de formation. loolu yëpp daal ci am ma ñëw dugg ci sujet bi dugg sur le fond li tax may sant suñu borom mooy. fond bi nga xamante ne moom la ñu daan manipuler souvent bi ñu may répondre kenn duggul ci fon bi cest dire que si je suis habilité ou pas la ñuy wax cela veut dire quoi que souvent parfois da rendre compte que y en a parce que daa wéer fu mu dem man critique Bouba dama ko bëgg parce que dama jàpp ni il critique selon ses ressentis am na ci ñenn ñoo xamante ne souvent porte presse la ñuy def loolu dafa yooyu yëpp tey man ma dugg ci fond daat ne sujet bii kat sur tel lii moo am document sangam luy am document sangam et ces documents la le fait que ma ne les ces documents sont disponibles et comme mën nañ ko joxe ça dérange xam nga lu tax parce que il porte le sceau de la vérité et des faits maintenant on va orienter ne ma pas habilité waroo ci woon wax pourquoi nga ci wax te Badara Gajaga Gajaga bi wax loolu depuis le début mi wax sur ce dossier Bouba ngi toog nii waroo koo na xool wax il est plus sénégalais que moi il en parlait tant qu'il voulait est-ce qu'il est plus sénégalais que moi et man on m'a invité ci plateau bi porter sujet bi mu wax ci ñu ne ma lan moo tax nga war wax parce que tu n'es pas habilité en parler pourquoi j'ai été alors invité pour ce, sujet là mais on peut toucher du doigt ton objectivité. non non du point du non non mais en fait. Euh, non maanaam d' accord mais c' est non non non maanaam d' accord naa xam nga la question de l' objectivité. toujours nit bu amee fu mu bokk. Ah, waaw man dama lay wax gis nga benn affaire malade. Hmm. boo demee biir Pastef. Hmm. te li may wax nii Pastef yaatu après am na ñoo ci xam. Hmm. boo demee boo leen nee cest souvent je suis je suis catégorisé comme quelqu'un ku xaw a tàgg. quelqu'un qui est peu. intransigeant souvent loolu la ñuy wax parce que dañ ne ma a ne négocies pas gis nga décision bi nga xamante ne ARCOP jël na usman Ousmane Sonko su bokkoon ci CRD bi sax c'est une décision boo xamante ne teguwul ci dëkk usman Sonko ñi premier ministre bu ci bokkoon il n'en demeure pas moins que cette décision teguwul ci dëkk te li muy wax naan laaj nañ ko Jean Michel et que euh, dañ ko ko joxul biñ koy envoyé pour ne na ko indi moom Jean Michel. daf ko fekk effectivement toujours dans le cadre de l'électrification de 1700 villages tey jii nii émission nii bu ko fekkoon Dakar moom mooy ñëw parce que mi ko fekk ca Cap Skirring parce que mu ngi ci dossier ci la nekk ba tey. Mhm. que je suis en de vouloir dire bi ko ARCOP saisir ne ko jox document dafa woo Sayar direct ñoo maa ngi santaane je rentre tel jour mhm. je vous envoie tous les documents avant moo ñibbi. CRD bi daal di délibéré daal ne moom dañ ko laaj document jox ko leen voici les faits. maintenant fi may daanele. sur ce sujet ñu jàll ci beneen mooy li may sant yàlla mooy. baal ma est-ce que le CRD est sous la tutelle de Jean-Michel. le CRD est. oui non non non nekkul sous tutelle Jean-Michel CRD bi. Ah, la nekk a ma malal ma dolli la. en plus duñ ko koy laaj. Euh. joxuluñ ko date limite. mooy loolu li yéeme c'est-à-dire que loom affaire bi moo wax gis nga dans cette affaire là. de façon tellement simple que que les Sénégalais comprennent. il y a un monsieur et moi je le dis haut et sur la base de documents qui a fait du faux sur la base de documents de APO bu Santander euh, bu bu bu Espagne qui s'appelle Seydou Kane ce monsieur là contrat bi mu am premier décaissement bi xam nga kañ la am bugguma ci woon sax wax. période de cassement bi ñu wax xam ngeen ne à la veille de l' élection présidentielle 2024 je vais pas dire Seydou Kane est qui ah ñi qui est mieux que moi et nous le savons nous mais jarul wax parce que bëgguma ñu politiser affaire mais je suis en train de vouloir dire que cette affaire là sur la base des faits des documents jusqu'à la fin ci intérêt Sénégal alalu Sénégal buuba yow en tant que citoyen sénégal ñu war a jël alalu Sénégal war koo dugal foo xamante ne dafa war a leer lu jub la war a doon man ma ñëw naa nekkat lii du yoon nañ ko teg fi nga ne ma non d'accord naa waaye waxuma ci alal ji yow est wax ma ko c'est ça qui se passe dans ce pays dëgg gi da nga koy wax muy des faits vrai yoo xamante ne xam nañ ne li mooy les mais pour critiquer dañ koy tëb dem ci ne est que yow yaa am habilitation ok yooyu da ngay tontu non non il faut mais très rapidement on passe au prochain non non non non non du jàll non man parce que parce que parce que parce que parce que man man man man waxee yow woo sax c'est-à-dire que yow ku la dégg ngay wax déplacement wu directeur ASER sax présentement fu mu nekk. c'est mon ami. waaw mais ah bon dans nous sommes dans l'état et on parle d'amis. tas mbaq. c'est mon ami Jean-Michel c'est mon ami. mais da nga wax ma déglu la ngay wax ma ne non. mais je réclame ah, mais non déggoo li ma la wax. c'est mon jeune frère mais déggoo li ma la wax. déggoo ma ne xam nga bi ngay wax dégg non non non non non saa yi li may wax léegi. da nga ma ne kii ma ne teg. voilà wuy ma der. Ah oui maa ngi lay lii mooy lii mooy. lii mooy nag xola lii mooy taas mbaq taas mbaq dëggantaan mi ngi nii taas mbaq dëggantaan mi ngi nii daf koo mel ni Ah, dafa mel ni dafa mel ni non dafa mel dafa ndànk rek ah, dafa mel ni ah Cheikh Oumar déggul galañ waaw moom xam na li ma koy wax sénégalais xam nañ dafa mel ni dafa mel ni mais taas mais taas mbàkk tëgg bu yeggul la waaw waaw waaw non non damay daaneel fii laay daaneel parce que taas mbàkk boo gis dafa am taj ah, tam waaw mais doomi la non non non mais non top dafa expression laa dul bàyyee parce que xam naa mais amul sens boo paree rek on parle des de l'AFDC au problème avec les Sénégalais. c'est sérieux. mënoo fexe yow itam ba du ma la ci toon parce que lu tax cette affaire elle est sérieuse pour moi. c'est de l'argent c'est quatre vingt onze milliards. Hmm. da ngeen koy jël orienté ko foo xamante ne du dëkk. boo bëggee dégg nag maintenant je vais aller plus loin. ce qui est en train d'être dit sur cette affaire là c'est faux. la vérité mooy daa am ku bëggoon a lubal alalu Sénégal parce que tàmm nañu ko et ce dossier Népal am na beneen boo xamante ne dina génn prochainement vous allez vous en rendre compte nous nous avons dit ñett parce que ñoo woote jub. jubal jubanti maintenant le fait que je défende ce dossier là parce que c'est la vérité le fait que je connais le gosse je sais ce qu'il fait et je sais connais ses compétences et je sais qu'il y a des gens qui veulent manipuler qui veulent le diaboliser moi en tant que quelqu'un qui s'est battu pour ce pays en tant que Sénégalais qui appartient à ce régime-là, je suis bien informé, je suis allé, à l'information, j'ai les bonnes informations, avec toute ma responsabilité mon ami ci avec Jean Michel. waaw léegi mais mais il faut yonent bi bi ñu ko laajee. mais non non mais il faut mais il faut. mais boo ci dee topp. bu fekkee da koy jàppale su nekkulee si dëkk da koy jàppale. mais bi ñu ne bu fekkee ci dëkk da koy jàppale am nga lu mu wax. mooy dafay non non. bi ñu ne bi ñu ne kon moom du wax. waxal ba daaneel. voilà daaneel waaw fi ma doon daaneel mooy yonent bi neen nit bu nekkee sa xarit da nga koy jàppale su nekkee ci dëgg da nga koy jàppale su nekkee ci lu dul dëgg ñu ne ko su nekkee ci dëgg de xam nañ lan lañ koy jàppale waaye su nekkee ci dul dëgg nan nga koy jàppale mooy da nga ko ñëw nga ne ko xëy nekkoo ci dëgg jublul ci yoonu dëgg et c'est comme ça que nu entretenons nos relations. c'est comme ça que j'entends oui yaa Jean a pas de souci. léegi waaw léegi s'il te plaît ñu. léegi explication yi dama ne la man taas mbaq rek laa wax. Mhm. saa waay commencé di. waaw waaw léegi lan mooy taas mbaq. man man producteur de musique. de bëgg nañ ko xam. waaw mais non non xam nga xam nga moom dafay gën a enfoncé clou bi. ah, ah. day gën a enfoncé clou bi xam nga toog fii ah wax ba pare nga pare nga ne c'est mon ami ah encore. dix mille fois plus grave les amis c'est les amis la patrie c'est la patrie le pays c'est le pays l'état c'est l'état l'état c'est pas des amis c'est l'état c'est les dix-huit millions de Sénégalais c'est-à-dire que c'est hallucinant yow yaa ngi gën a dugal sa bopp ci li nga wax ni parce que ñëwoo fi di commenter da nga ñëw fi pour défendre ton ami hmm? on n'a pas besoin de quelqu'un qui... mais donc je t'ai pas coupé tu me laisses parler dama ne tu es venu défendre ton on s'en fout. c'est foo boo buggee défendre sa xarit nga défendre ko fële ñun xam nga lu ñuy wax kuy défendre réew mi ak intérêt réew mi. munoo fexe munoo am maqaama man ku ma xam boo demee fee wooñu APRO AFPO PASTEFO n'existe pas pour moo xam nga lan moo existé Sénégal ce que vous faites boo leen nekkee entre yéen ça ne nous intéresse pas. foofu laay yem euh, it ngeen bàyyi xel kii mu ngi woon ci dossier wu ACR bi nga xam ne Adama Gaye moom moo taxaw wax wax euh, ne euh, ki nga xam ne moom mooy Abass Fall daf ko jox espagnol yi dañ ko jox cinq milliards pour mu convaincre ki nga xam ne mooy Jean Michel pour mu mën a def li nga xam ne moom mooy signé contrat léegi ci dossier book ci lañ nekk mais day ngeen euh, c'est-à-dire réaction li nga xam ne wax na ko comme ay argument wax ba pare bien vrai que def na erreur parce que dañ koy nangu tamit parce que warul woon wax euh, warul woon wax sama xarit la c'est mon ami donc warul woon wax lool loolu nangu nañ mais da ngay xool malhonnêteté te intellectuelle bi nga xam ne Bouba Ndour am na ko ak ñi nekk ci plateau bi bu ma xëy rek réaction bi ñu amaat pourtant Bouba daf doon daf doon argumenté de daf doon wax di joxe ay argument mais le fait que sa wax na ba pare rek wax na c'est mon ami rek il a tout lâché boo commencé nag taaw taas mbaq taas mbaq c'est quoi ça boo eggalee li nga xam ne moom nga doon wax muy euh, lu jëm ci mbirum ASER bi nga xam ne yow yaa ngi nekkoon di ci di ci argumenté di euh, indi ay sa jàngatu bopp di commenté boobu comme nee nga da ngay commenté mais bu mu waxee rek yow mbir ma soxalatu la quoi mbir ma soxalatu la léegi yaa ngi des ci c'est mon léegi jàpp nga ne am nga occasion boo xam ne mën nga cee téye mu ngi ci téye mu léegi eggale. créer sax laay wax créer beneen argumentation pour mën a détourner euh, xelu Sénégalais yi pour mu amaat beneen gis-gis ci ñi nga xam ne ñoom ñooy réew mi wala ci ki nga xam ne mooy kiitoo mu commencé waat man ay yaa ngi gën a sa bopp parce que euh, les amis ce sont les amis mais l'état c'est loolu ñëpp xam nañ ko loolu xale yi ram sax xam nañ ko mais tamit. li nga xam ne kii argument na ko fii lépp wax na ko fii lépp ci loo xam ne lu soxal réew mi la nga sàppe lépp lu soxal réew mi ci wàllum ay milliards yu waroon a détourné ay honnêteté bi nga xam ne euh, les jeunes la am na ko muy cent mille honnêteté bi mu am ak clarté bi mu am pour mën a leeral li nga xam ne moom moo xew ci direction bi direction wu ASER nga jël lépp effacé tege nee waxaatuma lu jëm ci loolu Sader Top c'est un journaliste de formation donc wax na ko sax nee na il allait euh, il vers l'information dem na jéem a saytu ji information gëstu xam li xew tout journaliste a le droit de savoir aussi tamit mën a dem à travers l'information journaliste boo xam ne nag yow nee nga da wax ci mbir te jëralu la déplacé wu dem vers l' information jëralu la jël sa téléphone woo ki mu engagé ki mu soxal mu wax la li nga xam ne loolu mooy dëgg nga mën a soog a taxaw laaj les deux parties ñu leeral la nga mën a taxaw joxe sa euh, joxe sa li nga xam ne bu boobaa commentaire sax du ko nekk mais da ngay ñëw indi information bi teg devant tout le monde lañ les sénégalais ñoom ñoo war xool nag ndax lii. li wax mooy dëgg wala li wax mooy dëgg bu boobaa la ñooy jugé ñoom mais du ñoom buuba ñoom ñoo war a taxaw wax sénégalais lii ngeen war a jàpp wala laa ngeen war a jàpp taman yaakaar naa ne euh, lu sérieux nga xam ne Sadikh Top mu ngi ci di nekkoon di wax ci loolu la ñu waroon gën a focaliser wu que sama xarit sama xarit la sama seen frère même loolu bu ko doonoon même loolu bu ko doonoon warul mën a tax Buuba arrêté argumentation di focaliser wu ci loolu cela veut dire que kon kii li mu doon jéem a argumenté amul woon argument d'ailleurs la fait que mu dëkk lii rek yam ca kon mooy la doon argumenté dëgërul c'est nga Sénégal il faut ñu euh, il faut ñu tourner waat ñun ñëpp regard Euh, le régime ak tamit l'état sama ne l'état nag mooy doxalinu réew mi ñun ñëpp ñu bokk objectif muy bëgg réew mi bëgg avancer bu ñu gisee koo xam ne mu ngi def des efforts pour mën a avancer le pays ñu jàpp ci pas rek dama toog ci plateau dama war a dal ci kaw régime bi il faut ma jéem a objectif il faut ma jéem a équilibré ba ngay créer yoo xam ne euh, ay manipulation yoo xam ne jaaduwul teguwul fenn tamit nit boo xam ne dafay défendre ak tous les moments li nga xam ne moom mooy la richesse de ce pays muy ressources yi nga xam ne mu ngi fiy juddoo waaye contrat yi nga xam ne amoon na fi résime bi résime bi fi jógee euh, signé woon ko muy contra yu baaxut ñii ñëwaat renégocier ko tam euh, mbirum cinq milliards yi ñuy wax contrat boobu contra bu ñu renégocier la woon mu yemoon ci ay euh, mille villages xaw ma ñu le jeune Jean Michel bi mu ñëwee moo ko renégocié dale ci mille sept cent villages donc loolu duñ ko saluer mais dañuy taxaw di indi ay loo xam ne ñoom sax après dañ naan dañuy laaj parce que amuñu argument amuñu seen argument seen argumentation yi fondé wul dañuy taxaw rek wax ba pare daan ne la dañuy laaj nag bu xaalis bi bu xaalis bi jaar dañuy laaj foofu lañ ci yem quoi nit boo amee lu dëgër da ngay ñëw indi lu dëgër teg taabal ji bu fekkee da ngay commenter da ngay commenter xam ne loolu moo am nit ki du dem am information indi wax la taxaw naan ko bu yow yaa ma ko war a wax taxaw naan ko yow foofu waroo faa toog taxaw naan ko yow euh, waroo xam ñooña lañu lañu wax pourquoi warul a xam lu ñu waxtaan pourquoi warul mën a taxaw défendre li nga xam ne moom mooy li li directeur bi def ak li direction bi def te mu xam ne lii muy dëgg te mu dem vers l'information xam information euh, lan la donc loolu duñ ci bàyyi xel il faut ñu bàyyi yenn manipulation yi te jiital réew mi ci li nga xam ne loolu mooy nekk li am mooy doxalinu réew mi tamit donc loolu laa leen indi loon tey su ko defee yéen Sénégalais yi am ngeen ci seen xalaatu bopp am ngeen ci seen gis su bopp ñu def ko comme ni ko daan defee waxtaane ko après ñu kenn ku ne ñu gis Sénégalais ñoom moo gën a xam kan mooy manipuler ak kan moo nekk ci dëkk loolu Sénégal yi xam nañ ko. man dama yàgg wax ne régime bi nga xam ne moom moo fi jóge bokk na ci li leen xañ nguur gi mooy jàpp ne sénégalais ay dof lañu bokk na ci li leen gënoon a xañ nguur gi jàpp ne sénégalais yi yewwuñ kuñ taxaw sénégalais yi ne yi xam leen nangam sénégalais yi dañoo nii sénégalais yi naa ko yeewul moom ay doom yu la jox pour nga pour nga wér yow donc il faut ñu bàyyi euh, xel sénégalais yi xam ne plateau yi yi taxul ñu toog. il faut que ñu toog fa wax ji ñuy wax maanaam gën a mën a argumenté wala gën a xam sénégalais yi li ñuy wax taxul ñu toog fa lenn nag am na mooy am nañ moyen pour mën faa toog wala am nañ lo am nañ euh, suñ borom dimbalee na leen maanaam ñu jot ci plateau yi mën faa mais bari na ay sénégalais yoo xam ne tey bu ñu taxawoon ci plateau yi jàngal la loo xamul sax ci administration donc euh, il faut ñu respecter ñooñu loolu mooy li nga xam ne moom mooy dëgg respecter tous les sénégalais xam ne réew mi sénégalais yoo ko moom. te ñun ñëpp dañoo am droit defar ko dañoo am devoiru defar ko donc lu foofu laay yem di sant di gërëm joxe di daje bu beneen yoon incha allah